Euh, tey euh, nag euh, tey moom émission bi c'est un peu particulier parce que du émission pour xamal leen mais émission de prévention la prévention soo leen déggee ñuy wax prévention pour wax leen pour ngeen mun a moytu ah, ah pour xeex. bon pour xeex la pour contre benn euh, feebar euh, mais pour euh, surtout nit ñi bàyyi ci xel parce que day am ay moment yoo xam ne il faut ñu fàttali leen pour yenn feebar yi pour ngeen bàyyi ci xel pour ngeen bañ a trop baisser les tey dinañu jéemale donc suñu waxtaan bi ci. Euh, Covid Covid 19 donc euh, chacun cette émission là émission bi donc dañ koy euh, tuddee alerte Covid 19 ah Covid 19 alerte Covid 19 donc Covid 19 comme ni ngeen ko Chine la démarré au Sénégal ñun ñu ngi am suñu premier cas en 2020 feebar nag boo xam ne dafay wàllaate la feebar buy wàllaate la te wàllaate bu gaaw wàllaate bu gaaw euh, on en a parlé wax nañ ki en deux mille vingt wax nañ ci en deux mille vingt et un euh, il faut ñu continuer di si wax parce que suñ waxul tamit nit ñi dañuy def nekk ne affaire bi passé na nekkatul donc euh, nit ñi en ce moment dañuy baissé seen euh, ay barrières te suñu baissé seen barrière euh, mën nañu am ay surprise parce que feebar bi feebar bu saay-saay la te suy ñëw tamit day ñëw ak doole et ma rappelé toujours feebar bi c'est une maladie boo xam ne elle peut être mortelle euh, pour rappel tuuti rek euh, déjà rek par exemple en épidémiologie euh, euh, li nga xam ne moo fi jot a jaar déjà par exemple Sénégal ah am nañu benn nombre boo xam ne benn liim boo xam ne weesu na. 73 000 cas 73 000 cas du loo xam ne c'est négligeable te si 73 000 cas yooyu am na à peu près ay 1900 yoo xam ne donc euh, décédé nañ ci te euh, je me rappelle euh, am boo xam ne sax dañu doon wax ne ne les cas cas graves de Covid-19 ça touche. euh, surtout les personnalités donc euh, vous Sénégal par exemple koo rek dina la citer au moins benn wala ñaari personnalité ay nit euh, yu amoon daraja yoo xam ne Covid bi donc euh, daf leen euh, yóbbu à le monde am nañu benn nombre dëkka boo xam ne weesu na 32 millions. Donc euh, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Donc ça c'est pas demain, la veille que l'affaire bi di donc am na foo xam ne suñ fa tolluwee dañuy obligé on est obligé donc de vivre avec le virus dinañu dund ak virus bi dinañu dund ak euh, feebar bi. Euh, mais bon dinañu dem ba instant boo xam ne dinañ ko miin donc euh, loolu moo tax may jéem a attirer attention tuuti pour euh, rappeler leen ah su leen defee joxe par exemple manifestation yi ba noppi pour rappeler leen les mesures ah mesures li ñuy wax li nga xam ne moom moo ñuy xaw a aar tuuti par rapport donc ak feebar bi donc feebar bi naka lay manifesté wu euh, dafay mel ni rek lu ñuy wax grippe bon grippe ñëpp ko xam ah benn feebar la boo xam ne dafay euh, andi li nga xam ne benn mooy benn tàngooru yaram fièvre. fièvre bi donc euh, mun a nekk euh, bon fièvre boo xam ne euh, une fièvre modérée ah boo xam ne tarul torop mu dem ba jox la ci yenn cas yi donc benn fièvre boo xam ne c'est une fièvre intense donc mun na dem ba ay 40 degrés et fièvre boobu mun na ànd ak nit ki dafay. comme ay frisson donc di ñàkk à part euh, boobu nit ki mun na am ay métit ay métit ci yaramam loolu la ñuy wax algie diffuse donc euh, yax yi ñoom ñooy métti ak euh, yaram bi donc day am ay métit yu yaram li nga xam ne moom moo ñuy gën a moom mooy signe respiratoire yi donc nit ki dafay soj mun na am angine des am na ñoo xam ne seen nopp yi euh, dafay metti am na ñoo xam ne euh, daf leen di def sëqët sëqët bi mun na wow comme mun na nekk sëqët boo xam ne dafay andi ay euh, crachat donc loolu yëpp signe respiratoire yooyu mun na évoluer donc jox ñu ce qu'on une détresse respiratoire détresse respiratoire donc nit ki dafay dem ba nooyi nooyam bi donc dafay xaw a aju donc nooyi bi dafay metti suñ ko euh, seetee suñu jumtukaay yi am na ay jumtukaay yoo xam ne suñ ko utiliser dañuy gis ne ne euh, pour mu nooyi mooy oxygène bi donc ni muy euh, duggee baaxul donc. loolu su weesoo ñu gis ne que ne donc nit ki euh, am na loo xam ne loolu lay jàmbat ci yaram bi en ce dañuy ñëw vers les ñu am ay euh, analyse ay tests yi ñu leen defal test Covid bi donc suñu defee test Covid bi mun na positif comme euh, mun na négatif am na foo xam ne su fa tolluwee tamit. Euh, am na benn jumtukaay boo xam ne dañ koy utiliser bu baax si euh, feebar bi moom mooy ñu demander ce qu'on benn scanner scanner bi non seulement daf ñuy permettre ñu poser diagnostic bi mais également daf ñuy permettre ñu wax affaire bi euh, fi mu toll est-ce que genn bi la laal wala benn partie poumon bi la laal wala dafa laal donc poumon bi yëpp donc loolu moom moo permettre euh, en grosso modo euh, ñu def évaluation bi ñu xam donc euh, feebar bi donc fu mu toll donc si nit ki suñu defee test bi def scanner bi démarrer dañuy démarrer traitement bi donc pour traitement bi bon du ma dugg trop trop trop trop si détails yi Euh, mais par exemple ñun fii Sénégal am na benn traitement boo xam ne bon waa OMS quand même euh, ñu woon trop euh, par rapport ak traitement boobu mooy c'était le fait de donner de l'hydroxychloroquine mooy benn benn doom benn garab boo xam ne dafay faj ci biiru jël ko utiliser ko si traitement Covid bi man très personnellement sama expérience utilisé naa ko lu bëre et wax naa ko waxoon naa ko te da koy waxaat euh, ça marche hydroxychloroquine donc ça marche donc euh, euh, lu taxoon ñu terewoon ko bon bëgguma dugg torop ci détail yooyu mais loolu bokk na donc ci. jumtukaay si bi nga xam ne dañ ko doon utiliser donc pour euh, def traitement bi euh, ginnaaw loolu euh, am na yeneen yeneen garab yoo xam ne dañ ko fi doon associé ay anti ay antibiotique notamment te ñu associé antibiotique bi ak hydroxychloroquine bi dañ doon gis ne que ne malade yu bëri donc dañ doon doon récupérer loolu moo tax euh, bon bi ñuy wax Sénégal ñun euh, ñu bëri daf leen jaaxaloon ñu ne ñun pays en voie de développement naka lañ doon def pour euh, régler problème bi alors que dans les pays industrialisés donc les gens n'arrivaient pas donc à régler correctement ce problème donc euh, peut-être ñun dañu utiliser loo xam ne ñoom utiliser wuñu ko wala dañu góoboon loo xam ne ñoom gëmuñu ko woon et loolu donc moom moo euh, nekkoon euh, résultat yi donc ginnaaw garab yooyu am na beneen moyen boo xam ne dañ ko doon joxe par exemple oxygène bi mooy ñi nga xam ne dañ doon amee détresse respiratoire dañ leen doon defal oxygène Euh, à part oxygène bi mën nañu beneen bon euh, man damay wax toujours que c' est un traitement moom mooy vaccination bi donc euh, vaccination bi amoon na solo trop parce que actuellement même bu fekkee éliminer wul feebar bi à 100 pour mais par exemple formes yi nga xam ne moom lañ doon communément wax ne que ne des formes sévères. donc vaccination bi dina ko xaw a dina wàññi seen euh, doole loolu moo tax bon fi mu nekk nii léegi on arrive donc euh, mieux à juguler léegi fi mu nekk nii mën nañu euh, dund donc ak ak feebar bi wante n'empêche n'empêche damay rappeler damay rappeler mesures barrières yi donc pour que ñu gën a mun a jà jànkonte parce que là actuellement ñu ngi ñëw dugg ci euh, ay fête euh, dina am ay rassemblement euh, seddaay bi tamit mi ngi dugg ci dafay favoriser <coughs> feebar bi lu mel ni par exemple su ñu defee mesure préventive rek en ce moment là loolu dina wàññi donc doole loolu feebar bi donc euh, ma rappeler donc mesure préventive yi euh, moom la ñuy wax les mesures euh, barrières c' est toujours le port de masque gisatuñu nit ñi di sol ay masque wante war nañ ci commencé bàyyi xel suñu waree dugg foo xam ne dafa am mbooloo wala dugg si ay bus wala dugg foo xam ne dafa xaw a bari nit il est de porter les masques. Euh, distanciation sociale bi moom mooy un mètre bi nga xam ne moom nañuy bàyyi entre ñaari nit surtout suñu nekkee foo xam ne dafa am mbooloo loolu tamit euh, il faut nit ñi commencé di bàyyi xel ñu commencé koo respecté bu fekkee tamit euh, génn nga gi duggaat fexe ba raxas sa loxo ak de l'eau savonneuse mooy ndox ak saabu wala ay utiliser euh, gel yi gel gel yi wala euh, nga utiliser euh, mooy gel yi voilà wala utiliser donc alcool donc pour mun a rey virus yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sa loxo donc suñ ko defee rek bu boobaa dinañu di nga aar sa bopp di aar tamit sa entourage et surtout à ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, sa famille et surtout bu fekkee famille bi dafa am ay nit yoo xam ne euh, dañu am seen euh, lu ñuy wax seen baisse de l'immunité en ñooñu c'est surtout ñi nga xam ne dañu am diabète am insuffisance rénale les personnes âgées xale yu ndaw yi ah ñooñu ñëpp xale yi tax ñoom euh, c'est un peu particulier ngi euh, am euh, benn benn protection boo xam ne c'est individuel bon loolu yàlla moom moo ko def si ñoom yàlla moom moo leen donc à ñooñu ah donc personnes yi nga xam ne donc dañu fragile ñi ma ñi bu fekkee. def ngeen seen mesure préventive rek ñooñu donc dañ leen di dañ leen di aar donc euh, di ñaaxaat askan bi euh, ñëpp ku nekk jéem euh, si jàpp rek ñëpp góorgóorlu comme ça ñu protéger suñu bopp protéger également suñu askan maa ngi terminé émission bi xam naa dina tombé. ñu waaj dugg ci année bu bees bi 2024 di souhaiter auditeurs euh, Sen Info une très bonne et heureuse année 2024 euh, di ñaan yàlla def euh, année 2024 nekk une année vraiment de bonheur de prospérité et de santé pour pour ñëpp maa ngi remercier sama équipe bi Euh, di leen euh, jox euh, dig daje le mercredi prochain merci beaucoup. Sénéinfo International ànd ak ay partenaires am Salim Dieda World Trading clinique Marie ak Al Madina International Travel ñoo leen di may seen émission wér gu les mercredis de docteur